bul fàttee bés cloche de notification bi pour vidéo buñ dugal nga mën see jot. sama doom maa ko yor doom bu baaxee ndeyam ko jël sama doom teg ko ci palaanu tere ne ko toogal yàq a réagir duma réagir ma bàyyee noonu démb ngeen gisaat Mandela tegaat xale bi teg ko ci euh, teg ko ci laay fam ne ko kaay toog yàq sa ndey xale bi di wax bay wax diggante Adji Sarr sa ndey lu mu baax baax wala lu mu bon bon bon ñaan sa peggu ndey boo leen jëlee sama doom ne di ko utiliser di ko def arme de guerre sama diggante ak yéen politique la def maa di wax lu ma

lu ma yoon may ma jël parce que nag dootuma nangooti ngeen di jël sama doom di ci ay plateau télé uniquement kaay na laay wax te nag maa ngi ñaan bu ma kenn ñaan ku ma ñaan du ma la may que nag jot na kii ñii di waa Walfadjri ak ñii di journaliste Walfadjri ma toog ak ñoom dem ñoom ci yoon yoon lu ma may ma jël ndax nag bët bu rusul toj yéen ñëpp yéen ci teg seen bët du kenn wax du du protection de l'enfant bu wax du jigéen bu wax du kenn ku réagir. c' est parce que Fatimata Ndiaye Fouta Tampi day déranger parce que mu ngi nekk ci pouvoir ñoom ñu ngi ci opposition jéem ngeen ne pour ne ci am am ci man benn lenn loo xamante ne rek lu toll taf tatal indi li ngeen ma mën a yàqee léegi leen ngeen am muy jël sama doom def ko arme de guerre pour bugg ko def arme de guerre politique déedéet du du jàll te incha allah rabbi ci kàttanu yàlla ma suba suba suba suba dinaa plainte sama plainte muy Walfadjri di coro lii foog yoon àtte bu fekkee yoon am na ci réew mi te gën naa sama suum réew te xam naa sama suum réew naa nekk ndey ji seex tëddee jaaxaanaay jërë ngeen